mais ku bokk ci réunion bi moo leen wax li xew ci réunion ndaje bi ki ci bokk moo leen mën a wax li xew ci ndaje bi donc nañu jaajëfal Cissé Lo ñu ñaanal ko jàmm yàlla continuer koo may doole bu ko dara jot nag bu ko dara jot bu dara jot Cissé Lo xam nañu leen on vous connaît bu ko dara jot bu ko dara wokk gisoon nañ fi maître Babacar Seye ak yeneen xam nañ ne ay waxkatu dëgg baaxul ci Sénégal xam nañ ne ay nit yuy dëgg baaxul ci Sénégal bu dara jot Cissé Lo bu ko dara jot bu ko accident dal bu pneu crevé ngeen ne oto bee këpp bu ko Covid 19 dal bu ko palu dal bu ko problème mu rein dal bu ko tension dal bu ko dara dal lu ko dal on prend les Sénégalais témoin Macky Sall ak ñi mu àndal. c'est ça lu ko dal rek bu da ñu xam ne Macky Sall la ak gouvernement lu ko dal rek Macky Sall la ak gouvernement lu dal Cissé Lo c'est Macky Sall et son gouvernement bu dara dal waa jooju li mu wax yépp ay dëgg la ndax génnewu leen benn démentir indiwu leen benn démentir lu dul Farba di ñëw di wax ak kilifa naan waaw dof la te dof bi daf koo doon na ndax baayam balaa laataa muy génn àddina dafa dofoon xam nga loolu nit ku jàng waxoon naa leen ko une personne éduquée ne parle pas comme ça nit ku xam ku am xam-xam di nga toog di ne nit ki génn àddina kii baayam bi génn àddina dafa dofoon nga bëgg kooku bum la wax lu na lu ñaaw c'est c'est extraordinaire le manque de respect que notre gouvernement Euh, applique au Sénégalais aujourd'hui kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu mu toll kenn xamul fu mu jëm ah il faut que ngeen bàyyi Cissé Lo ngeen bàyyi ko mu nekk ci jàmm dina continuer dénoncer parce que j'en suis sûr et certain que laal ngeen laalaake fi mu ne ni dóor dóor ngeen seen loxo ci ëkk di ngeen ci bëgg a génn mu tëleen fi ngeen door seen loxo di ngeen ci bëgg a génn mu taleen de fi ngeen ne tapp seen loxo wallahi di ngeen ci bëgg a reculer mu taleen ndax sëñ bi nañu waxante dëgg ah, bàyyu kenn moomul Sénégal waxoon nañ leen ko Sénégal ñun ñëpp a ko bokk cent personne bu ñu bëggee jël Sénégal tey pàccoo ko naka ngeen yaakaaree ne loolu du indi scandale du indi problème mais day jur problème problème rek lay jur. wala ay sénégalais ñëw protéger leen. ay sénégalais yu taxaw ñu ne déedéet Fundengeleer bi kenn exploité wu ko mais écoute j'ai un terrain au Sénégal je ne l'ai pas construit cela veut dire que dañ ma war a nangu sama terrain jox ko beneen nit déglu leen ma bu baax maa ngi yor man sama terrain Sénégal terrain boo xam ne nanguwuñu maa jox titre foncier nanguwuñu maa jox ay këyit pour ma def ni borom doole attention Babacar Ngom bépp terrain bu mu am ci Sénégal. dañ koy jox këyit Babacar ngoom xam leen ne alal bi mu yor nii yépp du du alalu luxus déedéet ñun Amérique am nañ ko fi you gotta have good credit maanaam da ngay am lu tudd crédit da ngay am numéro social sécurité bépp doomu aadama bu fi nekk dangay am numéro social sécurité à travers ce numéro de social sécurité mën ngaa am crédit bu baax li ñuy wax ci Amérique quatre-vingt-dix pour cent de nos recherches sont basées à propos des crédit déglu crédit quatre-vingt-dix pour cent de nos richesses som basées à propos des crédits ñi ngeen fii dégg yëpp waaw dama jënd comptant liquide cash d'accord da nga jënd comptant liquide cash déjà ñun suñu banque yi doxuñu ci comptant liquide cash ñun doxewuñu noonu maanaam boo gisee tey Bill Gates Bill Gates il est cent milliards riche mais Bill Gates amul cent milliards de liquide boo xam ne mën na koo jël teg ko ci kaw taab de dollars amul fenn amul benn banque ci ci Amérique boo xam ne am na cent milliards de liquide ci biir you paper rich the richesse fii kayit la maanaam kayit richesse donc ce que nous voulons dire à Babacar Ngom ak ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité sénégalaise yi te ñu ñuy déglu chance bi ngeen may Babacar Ngom donnez-le aux paysans la chance que vous avez donnée à Babacar Ngom mais tu vois déjà déglul wax ji Bassirou Diomaye on a donné à Babacar point cinq milliards pour faire des forages 2,5 milliards xam nga forage ñun forage u àll bi gars yi nee nañu 150 millions man sama village am na forage je vous garantis defu ñu fa 100 millions parce que forage bi dangay gas pax ba mu xóot ba mu dem ci suufa suuf mooy fi ndox mi di gën a walangaan nga def benn tuyau bu gudd nga def ci machine boo xam ne day pomper ndox mi mu génn loolu mooy forage. maanaam da ngay gas ci suuf nga atteindre ndox ci suufa suuf pas ndoxu xorom xam nga loo sale maanaam mënuloo ko arrosé ay tool ndoxu xorom day rey donc da ngay dem ba ci suuf jot ci ndox mu neex ni nga yóbbu tuyau ba ci suuf nga teg machine ci kaw pour mu pompe loolu matul dans dans des normes bu cent cinquante million day doon bu haut gamme bu nga bu qualité bu baax mais bu dee rek forage bu normal je vous dis qu'avec cinquante millions tu peux en faire beaucoup donc deux point cinq milliards lañu le gouvernement Sénégal jox Babacar Ngom mais tu te rends ñu jox la terrain trois cent milliards amin trois cent euh, euh, hectares dellu jox la deux point cinq milliards mais pourquoi ne pas béykatu baadoolo yooyu ñooñu ngeen di xeeb ces pauvres là ñi nga xam ne tey gouvernement Sénégal dans les normes bu ñu dundul sax yéen leen war a jox ñu dund mais pourquoi ne pas les donner les moyens ngeen jox leen ay titres foncier ay këyit parce que këyit boo ko joxee nit këyit boo ko joxee nit këyit nit bu yoree këyit jox nga ko droit nee nga ko sa droit mi ngi nii sa àq ak sa yelleef li nga xam ne moom laa amalante ak yow ci àq ak yelleef mi ngi nii jox naa la léegi ci borom lay dépendre mu jël kayit boobu mu dem teg ko ci banque ñu lebal ko mu utiliser ko comme garantie mooy bu fayul banque bi banque bi day moom suuf si wala borom jël ay kayitam ne man de damay jaay sama suuf si pour ma jox ci sama doom Ablaye mu tukki bitim réew xam nga loolu man naa nekk ndax Sénégal nit ñaamuñu mooy man gis naa nit ñoo xam ne dañuy jël seen suuf jaay ko pour tukkil seen benn doom kooku bu demee di am 1000 euros wala 2000 euros par mois mu yónnee papa 1000 euros ba léegi. investissement la bu dee noonu nga ko bëgg a investir wala gis naa ñoo xam ne aussi dañuy ne ah man comme mënuma bay bàyyil ma jënd ay jur ma leen di amul problème mais joxal paysan bi la chance de développer wala la chance de choisir sa propre vie le paysan donne-lui la chance te wallahi azim loolu rek laa gis Bassirou Diomaye di def man ànduma wala bañ a ànd ak kenn wax naa leen ko nee naa leen man maa moom sama bopp wallahi man bu ma neexoon ma jël sama carte sànnil ko Abdoulaye Wade Karim wadd maki Sall Idrissa Seck ku ma neex kan moo ma mënal dara kan kan moo ma moom ku ma jënd man kan moo mën a toog tey mu ne waa jii de sama alal mi ngi ci moom sama njëg mi ngi ci moom amul benn doomu aadama xeex yi fii xeex yëpp on l'a fait gratuitement musuma jël dërëmu sénégalais musuma dale dajale ñaari santi mu sénégalais liñ fiy def yëpp dañ koy def te yàlla tax je pense que Bassirou Diomaye fay c'est un Sénégalais de qualité un Sénégalais de qualité un Sénégalais de valeur te yaakaar naa ne doomu Sénégalais yi war ngeen bàyyi nit ñu mel noonu xel dama leen koy wax toujours nag toujours ma wax leen ko nee naa leen am benn borom xel moo gën am téeméeri dof xool leen tey li ñu dal ci gouvernement Macky Sall bi sabar gu tas ñu ngi saagante ay ndey ñu ngi dóorante ay bal ah ay balles perdues parce que Macky Sall jël na benn manœuvre euh, euh, Farba Ngom benn nit boo xam ne ay brouette la doon pousse benn doomaram bu tekkiwul dara mu jox ko valeur jox ko personnalité boo xam ne il se couche dans des maisons d'un milliard aujourd'hui Farba Ngom ci ay këru milliards lay tëdd ci puuskatu brouette bu xamul dara tekkiwul dara Farba Ngom il est analphabète du ci français du ci anglais du ci arabe ma am xamul A nii B xamul alif nii laam xamu ci benn kooku nga jël ko gànnaa yoo ko sa bopp parce que géwél la lammiñ bi neex na nga teg ko sa wet ne ku ma wax rek nga saaga ko nga instrumentaliser c'est des mais c'est des blagues Sénégal niñ ko bëgg a doxalee baaxul ni ñu bëgg a doxalee Sénégal kenn mënu koo doxalee ab réew nga jël tey euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo doon bind ay journaux di bind ay dëgg ci biir dëkk bi waxuma sax ay dëgg xaw ma ay dëgg la ñuy bind xaw ma ay fen mais ñoom ñoo daan tas xibaar yi tey nga jël nit ñu mel noonu nga jegeel leen sa bopp ne leen xibaar kenn bu mu ko tasati bu xibaar di génn rek nañ ko contrôler moo tax yàlla créer réseaux sociaux li ngeen gis mu judd ci réseaux sociaux yi nii yépp c'est le c'est le pur résultat de la raison des plus forts maanaam Macky Sall ak gouvernement am nee nañu dañuy jaay sénégalais yi doole yàlla ne Macky Sall ak gouvernement man maa leen ëpp doole boo leen teree sénégalais yi war a wax wax dinaa yee ñu mel ni tunkar ma jox leen lu tudd Facebook ma jox leen lu tudd Instagram ma jox leen lu tudd Twitter ñu ñëw fii di wax ak sénégalais yi ñuy dégg c'est ça la réalité li ñu indi fii ñun wallahi ce n'est c'est rien la force de de Dieu doole yàlla rek moo ñu fi indi ñun li ñu fi indi du suñu doole ñun du suñu kàttan du suñu taar